xew-xew bu masa am mu jëm ci koor kori tabaski aju màkka ak lépp gàmmu ma fab suma wërsëg ma dimbali ci doomu aadama yi ma gis ne àddina bi yëngu bi bari na te coow li bari na lii daaw ma ko def moo tax tey ma ni li may def il faut ma seeral ko presse bi ak àddina pour ñi nga xam ne tuut la ñuy def di ko wax di ko wane ñu xam ne man ci loolu laa dëkk ndax jamono bi foofu la toll ma am ay engagement yu ma jëloon suma frère Serigne Sow wax na ko ci jàpp gu mu fas yéene jàppale président te parrainé woon ma ko ma ñëw ci ma ni ko woon jigéen ñi ànd ak moom ci développement dinaa leen jox un million chèque bi pare na altine mën nañ ko retirer waa Dalangaa bu xam ne dañoo def résultat yu am solo ndax foofu laay milité fa laay voté à Ngaabu yàlla def ñu gagné élection yi contrôler maire bi muy ci loo xam ne dañ ko def ak brio su ma soxna nekk première adjointe au maire ma mayoon leen million ñoom jigéen ñi pour ñu seet luñ ciy def président Ndiouga kon maa ngi lay remercier monsieur le maire chèque bi mi ngi nii pare na jigéen ñi nga xam ne dañ ma jege woon ma jox leen un million cinq cent mille ñoom itam pour appui màggal gi chèque bi ci turu dabakan la ne dina ko tirer altine pour tabaski gi jeunes yi samay jeunes lañu sept cent mille laa leen jox jeunes filles yi madame Dieye nekk ci bopp bi deux cent mille francs Bassirou Diagne ak Matar nekk ci jeunes yenn yi cinq cent mille am na sax nag yeneeni rox sa yu ma mënta publier waaye loolu moom ñoo ko bokk ñu xool nuñ koy def mais bi loolu amee dama jël te commune Mbacké ak àll bi ak biir Touba kenn ku ne kuy responsable ma xool li nga xam ne li jàpp naa ne mën naa la ko jàppale ñaar fukki junni ñii fukki junni ñii juróomi junni comme niñ ko waxee enveloppe bi dix millions la du vingt du quinze fukki million moom lay séddale am yéene joxe ko fii ndax ndakaaru joxe naa fa ñetti millions njàmbur joxe naa fa deux millions am na sax ba Ziguinchor fu ma dugg xëy na dana ëpp vingt millions mais damay fàttali ne ñu ngi ci aj gi te fukki nit yóbbu naa leen màkka fukki nit loolu it maa ko def ci samay pexe ak suma lijjanti kon may ñaan nit ñi ñu teey te dal dégg naa naam ñoo xam ne ci ay rajo yoo xam ne dinaa ci dig gëm naa ne ñu ñu fay xaalis lañu pour ñuy wax pour di tirer ci man mais man damay demander parti bi ma ne ca kaw laay wax de bés bu ñu jàppee ne man maa yàq parti bi nañ ma génnee ci bés bi bés bu ñu ko jàppee pare naa pour génn taxaw fële loolu dama bëgg mu leer kon soxlawul nañ ko génnee parti parti bi li ma ci def xam naa ko je suis un des géniteurs de ce parti ci ñi ko jur laa bokk nampal ko teete ko xeex ak Ablaye Wade ak dooleem xeex ak sëriñ su ànd ak moom ba daaneel Ablaye Wade teg fi Macky Sall mais damaa dégg débat bu ma jaaxal damay renvoyer ñooñu ñu dem ci livre Abdou Diouf ca Abdou Diouf jaar ci Senghor ñëw ci Macky Sall dama leen di laaj ban président moo ñëwagul tànn ay ministre ak i directeur te kenn xalaatalu ko loolu laa leen di laaj ñu ni man sañuma ginnaaw bu Youssou Ndour tànnee ay nit ñu def leen i directeur gannaaw bu ku ñuy wax Babacar Touré tànnee nit ñu def ko ministre gannaaw bu Tanor tànnee ñu def ministre gannaaw bu Moustapha Niass tànnee mu def ministre te ñooñu bi may xeex ànd ak Macky Sall jegewuñ ko ñu ne ma man sañu ma wax nit nit nañ ko def directeur wala député wala ministre bis bu ko rek a loolu APR agréé bis boobu laay génn APR man damay wax sama xalaat ci ku ñu war a jël Macky Sall nag mooy décidé waaye fallu naa ay nit Matar Diop mi maa ko fallu chargé de mission la Bass Diagne maa ko fallu Ami Mbacke tubaab maa ko fallu sëñ Mor Ndiaye ci liste bi ma bind doon ko défendre conseil économique ci la bokk député yi fi maa leen tànn docteur Kanté moo ma sarxu laa wax ci biir këram jabaram di jooy ma dem ci Macky Sall xamal ko ni moo ñeneen mérité nañu ñu def leen ci biir jox leen cër kon kay man gannaaw maa njëkk a tudd port wax ko président am na ñuy weddi nit buy weddi day weddi lu mu xam am naa lu ëpp vingt témoins yu xam bi Kanté di force samay daal di ko yor di ma yorali saak guddi ak bëccëg fu ma nekk mu fekk ma fa mayu ma jàmm loolu jën farba woo leen ko laaj ko wala maître Bouba Diallo ma ni maa dalal Kanté bu dee football maay maay entraîneur am maay coach bi maa ko coaché mais nag malheureusement dafa lajj Kanté dafa lajj laa wax docteur Kanté Macky da ko war a dàq daa lajj daa lajj secteur privé àll seen ba ma koo la nekkoon maa ngi ci plainte am ci lu Macky Sall def yóbbu na ko sax OFNAC àll seen Moustapha Sène mi ngi fii ñëw na ci man ay plainte am Pala Mbeng ñëw na ci man ay plainte am li ma yor ci plainte dossier yu rëy a rëy la te lépp ci sama xel laa wax de bu doon maay juge man ñu jox ma ko may juge damay jàpp Kanté ci ngoon gi waaw ndax yéen ca def dara jubu ci kon ñiy wax ñu leen di jox xaalis ñuy wax nañu arrêté secteur privé bi mënuñuy dee ami problème port bi ñi ci amoon intérêt ñépp Kanté rey na leen ànd ak i tubaab ak nit ñuy caaxaan loolu moo am léegi daf ma porter plainte na ma porter plainte kay moo gën a gaaw suba nan dem jàmmaarloo ci juge bi ma génnee loo xam ne bu dee juge nga fa barke Cheikh Al Khadim te muy def dëgg Kanté du génn foofa loolu mooy wax bi du ay affaire yi ay gone yu tuuti yoobul xëy xam ne ci ay diil la ñuy dund ak i tappale ak bu ñu waxee ci rajo ñu fay leen man damaa am métier damay liggéey di am xaalis bi may liggéey di dëkk Dakar Kanté xamul fa may Kanté laaj leen ko fan la amee BEPC ban école la laaj leen ko fan la amee baccalauréat laaj leen ko fu mu amee doctorat mais du ngeen lijjanti loolu maa ngi sant frère Youssou Ndour bi lim leen wax débat bi du débat ñuy xuloo ci biir parti Kanté bokkul APR ndax gisuma ko ci benn structure wala benn instance parti xanaa département bu mu dem yàq ko loolu laa gis ba ci Fatick wool waa Fatick nga laaj leen bi fi Macky Sall demee daa beru du toog ak waa Fatick te man maa ko indi laa la wax man Diène Farba ñoo ko doon négocier dañoo bañ ma wax ko ah loolu daal mooy Macky Sall wër te mën a yorum réew Macky day yor réew mi xamul nit ñi ñu bàyyi ko ñu koy nax di defi diil ak kilo bi ñun ñaandoon ak moom di wër àll bi ñu napp ci mbir mi man de du ma ko def bés bu ma ko defee rek génn naa APR bés bu ko Macky waxee ma génn APR ñun dañuy wax suñu xalaat mu def li mu gëm boo lëggee ñu wax pèlerinage à la Mecque mais dañ ni nañ dem ci man maa dem assemblée Mankeur ñëw député yi fekke nañ ko ma ni ko nañ dàq commissaire bi mënul commissaire général xam nga génnewu ma woon wax ji fii te dem naa ci mag ci wax ko ko bàyyi nañ ko fi tey njaaxum yi am mas naa am ci Sénégal kon damay wax léegi nit ñi di dégg bu ñu nanguwul ma wax sama xalaat ma wax ko comme ñëpp loolu mooy wax bi c'est aussi simple bu dee loolu nag mooy ku bokk ci parti mais waa PDS seen coow yi ñuy coow lu tax teguñu ko Youssou Ndour mu groupe Futurs Médias dégg naa mu ne kuy jaar da ngay jaar ci kaw Macky Sall ku bëgg a dem ci Macky Sall ci moom ngay jaar lu tax interprété wu leen ko man li ma wax dafa clair Kanté mbaa ko dimbali jàppale ko andi ko ci parti bi bis boobu sama sama oto ci la accidenté ndax màggalu sëñ Cheikh digal seen la booba nag porte booba pouvoir yombul tey la ñuy wax Macky Sall sànnil Moustapha Cissé Lo Macky Sall na def nee nañ nañ ma sànni man bu ma toogee sañu maa wax ni Macky Sall bëgg naa diw mu nekk ministre wala dégg bëgg naa diw mu nekk député te man ma bokk ci ñi cotiser damaa cotiser jënd ay oto juróom-ñaari oto laa jënd fii sama xaalis dugg réew mi dugg bitim réew damay wax loolu tey ak suba ñooñu koy wax je leur fous dans leur gueule du ma seen moroom du ma seen màppandoo tolluwuñu terrain bu ñuy daw ku ci am sab télé bu la neexee nga wax li lay wax mais nañu dem ci askan wi ñu dem ma beru ñuy voté ñu voté man de falu naa falooti falooti te gëm naa ne danaa falu yàq kon loolu je tenais à le dire ñun ñu waxe wuñu aw taat aw làmmiñ la ñuy waxee gars yi wax yëpp mosoo cee gis ku ñemee attaqué El Hadj Diouf El Hadj Diouf ku ko tudd mu mu tontu la mais gone yoo xam ne bu ñu wëree dem ci télévision wax ba suba bu ñu xëyee ku ne ñu ne waxal naa la lu neex nga jox leen cinq cent mille wala un million ñooñu dañuy ay référence samay doom rek leen man gone yi doon wax dem samay doom duñu seen moral teg leen ko nag ni ma ko waxee bu leen ko tag bu dee rek da ngeen a fidèle communication la nañu teg li ma wax dama ni gone yi nekkoon télé yu sunduur di wax samay doom nawloowu ñoom ñoom bokkuñu jukko bokkuñu yar man a gone yoo xam dañuy naan sàngara di taxawaalu nekk ci jabari jàmbur yi duma waxanteeg ñoom waaw man nit ku set laa ku sel modèle laa nit ñi dañuy ñëw di barkeelu ci man ma boole koog nag di jëf ndimbal ci doomu aadama yi ci loolu laa ne Kanté bu dee moom daf maa ñeme nanu dem xeex dem tribunal combat bi du combat parti politique de il faut mu leer c'est un combat économique moi je suis président de chambre de commerce am ay intérêt ci port bi samay nit am ko ci Kanté di nu rey di nu tëraxal di fab alal ji di ko pasar pasare loolu moo am waaye ñu ne nag bu ma wax te ñu ni dañu bëgg lu sobre lu vertueux te boo waxee ci suuf kenn du ko toppatoo kañ laa commencé wax ni Kanté yoon wi mu jaar baaxul autorité yëpp wax naa leen ko loolu moo ko neexul muy fay ay nit pour ñu may attaqué man ku ma attaqué moor duma dama lay tontu de ndax réew mi ci laa dëkk de te dossier yu garaaw laa yor damaa bëgg ñi koy waxal ñu yem mbaa ñu jàll fii OFNAC wala CREI yi lañ jëm waaw OFNAC wala CREI ñu xool ba xam réew mi dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey dama bëgg mu leer nañ ci bopp nit ñi et que ñu arrêté di ma def débatté du ma teew ku bëgg ma wax kay ñooñu nañ ma woo bu ñu bëggee wax ci man ba xam man ñeme naa ñu toog ñu may wax li ñuy wax ñoo xam ne maa gën seen baay gën seen ndey gën seeni tànt samay doom gën leen ñu may saaga bañ ma tontu loolu duma ko nangu tey duma ko nangu ëllëg lii di teraanga daal andi naa ko di ko jox waa Mbàkke mais bis bu ne bu wax jotee day am nga waxaale li nga xam ne moo la concerné APR la Macky Sall la àndal bëgg mu gañe am beneen mandat département Mbàkke bi gaw ma ne kenn mën na koo gañe te àndoo man gaw ma ko mënees na koo perte ànd ak man mais mënees koo gañe àndoo man loolu laa gëm loolu kon yéen ñi ñëpp maa ngi leen di sant sëñ Mor Ndiaye Serigne Sow Gabane Moustapha Ndiaye Moustapha Ba ñi nekk ci ànd ak man ñoom Bas Diagne ñoom ñoom Ndiaye Mar ñi nekk fii ñoom Youssou Loum ñoom jigéen ñi umaane ñoom ñi wax ngeen baal ma mënuma lim ñëpp maa waaye il faut ma citer waa Touba yëpp yi ànd ak man Goumba Amar ñoom ñi nekk Mbacke xam ne modèle la fi nekkal bu Ibrahima Sall maa ngi koy sant Bassirou Sarr Khayra Diaga toutes les femmes du département dañ may soutenir maa ngi leen di sant Maguette Diakhaté waxtaan naa man nekku fi mais waa këram a ngi fi comme ni ma sant Mor Ndiaye laa koy sante Mor loo li mu wax aussi wax bu leer la maa ngi sant yëpp di leen gërëm di leen xamal ne nii laa ko bëgg a jàppante yéen leneen li neex nag mooy damaa bëgg ñuy xeex ak man ñu wuti moyen yéen wutal naa leen cent millions département Mbacké dama leen a wutal cent millions danaa ko lancé octobre meeting bu mag boo xam ne téeméeri millions yi ñuy séddale gone yi ak jigéen ñi ay financement yoo xam ne man maa ko contrôlé maa ko toppatoo loolu laa leen doon yëgal di leen ñaanal jàmm di sant sama sëriñ sëñ Moussa Nawel sëñ Mountakha Basirou ak xalif général des Mourides di leen ñaanal ñu yàgg fi te wér te xam ne taalibe sëñ Touba lay doon tey ak ëllëg di liggéey ngir lu yokk yoonu Mouride. ak ñi nga xam ne ñii dañoo nekk ci biir département bi ànd ak man ci politique allahumma salli ala sayyidina Muhammad